ministre te loolu je pense que ñu ngi koy xaar dina ñëw moom bu ñëwee assemblée nationale dinañu wax exactement fi nga xamante ni foofu la war a jaar pour que lii nga xamante ne ni moom mooy euh, engagement yi ñu jël fan la ñuy jaar ba respecté ko te loolu jàpp naa ne am naa ci njort bu rafet que bu ñëwee à l' assemblée nationale dinañ ko wax te ñun su boobaa bis bu ñu ñëwee aussi dinañu déglu. li nga xam ne jàpp nañ ne jubul ñu ne ah lii kat jubul li nga xam ne jàpp nañ ne war nañ ko defaraat ñu ne lii kat war nañ ko defaraat et je pense que c'est cette posture là qu'on aura tout au long de leur magistère. bu ñu leen fi bàyyee. démb ji bu ñu fi bàyyee leen fi bàyyee. c'est-à-dire euh, démb dama seetaan. Euh, non tey laa gis un extrait buy circulé. Mm-hmm. Euh, du nouveau directeur général du port Waly Diouf Bodian. oui euh, mu naan on ne peut pas diriger un pays avec vingt cinq députés. Mm-hmm. Euh, teg lépp ci suuf pour dem au au aux urnes. xam nga man mii gis naa cette vidéo là mais aussi je pense que euh, ñii comme ni ma la ko waxe bu ñu leen fi bàyyee. Euh, déggoo li ma la wax fi mu toll nii ñun ñun ñaanuñu saraxuwuñu lépp lu ñu am suñu prérogative la te dañ koy jël ba mu mat. ñoom aussi am na nañu mécanisme waaw déggoo seen mécanisme bis buñ ko buñ buñ ci yeggee xam nga fii ak septembre comme ni nga ko waxee mënuñ ci ñun dara parce que ñun dañoo fal. te on notre responsabilité ñu ñaanuñu saraxuñu ku nekk lu la yàlla may ak lu yoon may jëlal y a des négociations non déglu ma non non eh, négociation euh, Benno Bokk Yaakaar ñu ne na accepter accompagner le gouvernement pour ñu votel ko lépp et en contrepartie ñoom ñu bàyyi fi assemblée. waaw léegi mën nga ma déglu xam man maay la président du groupe parlementaire de la majorité. je suis formel. il y a aucune négociation entre ñun ak le président Diomaye fa nguuram parce que d' abord. nel yëgu ma ko waaw déglu ma ko parce que je suis le président du groupe parlementaire et j'ai réuni mon groupe maa ngi gérer mon groupe dama ne. ñaanuñu négociation saraxuñu négociation amul dara lu ñuy xaar ci xam nga lan la ñuy xaar ñoom ñu defar réew muy benn beneen bi mooy Waly Diouf Bodian dégg naa li mu wax sànq xam nga <clears throat> jamono yi la passé le porte-parole du gouvernement jóg na fi naan non ñu defee motion de censure dimanche la ko wax ci suba tontoom fanaanul dama ko wax ne ko moom na yam place porte-parole gouvernement ñun à l'Assemblée ñun ñooy apprécier est-ce que on fera une motion de censure oui ou non depuis boobu déggaatoo bu mu wax Waly Diouf Bodiang j'ai entendu ci vidéo boobu muy wax ne way on ne peut pas gouverner le avec vingt cinq députés on ne peut pas gouverner un avec des dizaines de milliardaires di leen bàyyi ñu mais moom nit ñi bi ñuy liggéey di nekk milliardaire moom dafa liggéey est-ce que tey président Ousmane Sonko boobu nit ñi bi ñuy liggéey di am ay milliards boobu liggéey nañ ñoom il faut que les gens arrêtent gis nga nit ñi nañu fexe xool ñoom li ñu digal seen dig sénégalais nan la ñu fexee ba def ko Maïmouna je reviens encore sur ce que j'ai dit réew soo waxee ba ñu jox la ko doo wax ba defar ko. mais tey jii ñoom wa ñoom je pense que il faudrait que ku ci nekk nga concentré wu ci li nga moom nga am comme responsabilité moom c'est le directeur général du port na fexe. liggéey bu am solo bi nga xamante ni Moundaga def na ko au niveau du port ba ñëpp gis ko na fexe nan la koy yokkee te bañ koo wàññi je pense que loolu moo gën ñuy wër di wax ci naan diw am na lii diw am na lii nit ñi ba ñuy am li ñuy am. booba ñoom peut-être ña ngay jàng wala ñu ngi def leen ku nekk il faut nga am la responsabilité ci li nga xamante ni moom lañ jox et puis la reddition des comptes j'applaudis des deux mains non déglu ma rek euh, la reddition euh, des euh, comptes non non non on n'en est pas là ah oui mais moom loolu la wax ci vidéo bi ñëw bul yàkkamti ah oui parce que il faut que les gens quand même respectent doomu aadama yi nit ñi ba ñuy liggéey ba ñuy liggéey di am li ñuy am boobu ñoom kenn xamul fu ñu nekk d'abord sur ñu mettre en place le gouvernement de Amadou Ba Euh, dañ leen infliger euh, l'exercice d'une motion de de de de censure. Absolument. alors est-ce que yéen au niveau de l'Assemblée nationale euh, di ngeen def retour à à l'envoyeur. est-ce que gis nga est-ce que di ngeen dafa nekk ci seen xel ngeen def motion de censure Ousmane Sonko le premier ministre bu ñëwee war a def sa déclaration de politique générale. xam nga ñun suñ leen toppoon ñoom ci seen wax yi ñuy wax nii bu subaa dootuñu am gouvernement. mais ñun may mun a nee naa la suñu busol mooy intérêt Sénégal ak sénégalais yi soo liiree communiqué bi nga xamante ne nii moom laa signé bi may répondre le porte-parole du gouvernement je leur ai rappelé ñoom bi us bi Amadou Ba ñëwee def déclaration de politique générale dañ koo defal motion de censure waaw léegi nag ñoom lan la ñuy ku moom xaar mi rek nga bàyyi buum gi du ñu xaar ba seen premier ministre ñëw ñu nag ñooy apprécier est-ce que on va déposer une motion de censure oui ou non kooku sa dépendra de notre groupe parlementaire et de l'appréciation qu'on fera de la déclaration de politique générale du premier ministre loolu may mais en attendant jarul yàkkamti en attendant euh, est-ce que di ngeen accompagner euh, puisque ne ngeen yéen seen boussole euh, c'est sûr euh, yéen ay républicain ngeen Euh, en attendant est-ce que dina am collaboration bi war. entre l'exécutif et le législatif. je vais je vais te dire quelque chose xam nga tey ji ñun on ne sera jamais des gens yu nekk di empêcher de tourner en rond xam nga dama lay jox benn exemple tey jii bu ñu indiloon benn loi de finances rectificative dañ koy voter. di ngeen ko voter. mais kenn waxaale wu ko parce que xamul tax pour que réew mi mën a jëm ci kanam bàyyi leen ñu liggéey parce que on les laisser gouverner loolu mooy la réalité mais am na loi yoo xamante ni may mun a tey suñ ñu ko indiloon comme ni ma la ko waxee ñu gis ne lii du li nga xamante ni jàpp nañ ne moom mooy ñoŋal la nga xam ne mooy dundu askan bi mooy li nga xamante ni dëppoon na ak état de droit mais su boobaa dinañ leen ko wax ba pare renvoyer leen ko ça moi je pense que y a pas de doute là-dessus on n'est pas encore une fois de plus dans la on ne sera pas dans la compromission je l'ai dit dans mon ñun on ne demande comme li ma la loo xamante ni luy jëmale réew mi Moustapha Sarré génnee euh, def cette déclaration là euh, di di di di mettre en garde mhm. euh, yéen da ngeen def communiqué absolument mais réunion dañoo réunion d'abord voilà def communiqué dañoo def réunion j'ai eu dire mhm. ñu ne président Macky Sall daf leen woo président Macky Sall dafa nekk ci dynamique u collaborer c'est pas vrai daf leen woo euh, dalal leen euh, pour que ngeen collaborer ak gars yi jàppale leen wax loolu et d'ailleurs ah, et d'ailleurs semaine boobu et da nga def communiqué bi rek nga voyagé déglu ma wax la benn affaire te ci voyage bi gisee nga ak président Macky Sall déglu wax la benn affaire may mun a c'était pour savoir le président Macky Sall attends déglu ma le président Macky c'est pas la mais dama la bëgg a xamal encore une fois mooy mën a on est formel ñun collaboré wuñu ak kenn xam nga kan la ñuy collaboré réew mi le président Macky Sall ne nous a jamais jamais je bien jamais di il faut collaborer avec qui que ce soit xam nga lan la ñu wax liggéey leen pour loo xamante nii moom mooy jariñ askan bi ci loolu lañu ñu nekk moi je n'ai rencontré ni le président Diomaye je n'ai rencontré ni le premier ministre Ousmane amul kenn ci ñoom koo xamante ni rencontré na ko pour ñu wax quoi que ce soit. mais rencontré nañ le président de l'Assemblée nationale mais absolument et le président de l'Assemblée nationale non seulement la rendu du Conseil il l'a rendu public mais il a rendu compte au bureau de l'Assemblée nationale te waxtaan bi c'était une prise de contact amul dara luñ amul dara luñ fa waxtaane ci ay affaire projet de loi amul dara luñ fa waxtaane ci ay institutions yi à part dialogue des institutions et une prise de contact foofu la yem. et la rencontre avec Ablaye.